18 h 8 minutes joté lañu alerté pour ben bâtiment bu daanu bâtiment bu defone ñetti étage bâtiment bi nag ay nit ñoo si dëkkoon ci souf amon na ay euh, opération commerciale comme ay wari yo ñoo nekkoon ci légui euh juroom ñaari simili lañ def pour egsi sur les lieux lool nap sax moo ñu ba en premier temps ñu mëna secourir ñetti victimes yi nga xamné ñoo nekkoon ci bâtiment bi évacuer len à l'hôpital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 Thank you.